dañ leen mën a jox respect respect total voilà je pense que loolu mooy li ñu war euh, dama j'ai l'habitude de dire ne on est dans un un pays normal mais on n'a pas un état, normal je pense que loolu tax ñun ñu jóg tey pour siffler la fin de la récréation parce que yàgg naa ko demander euh, à son excellence le président comme j'ai toujours demandé sur les plateaux ci média yi son excellence le président de la république siffle la fin de la récréation et du moment que defu ko nag ñu taxawal plateforme bi pour mu ko siffler parce que li fi xew bëri na ëpp na euh, li ñuy wax njëkk ci jigéen yi en fait parce que je je vois un état boo xam ne beaucoup de jigéen bëgguñu ñun jigéen ñi on le voit ci seen nomination yi ñu ngi koy gis ci seen gouvernement bi <laughs> amul benn jigéen ñi ngi masawu ba bi jëkkëram dóor Kolda Tamba je pense ñu jël tëj ko moom parce que même bu tooñoon jëkkëram sax attends c'est interdit de taper une femme un homme sax waroo ko dóor asama jigéen et moom la ñu jël emprisonné ko même bu tooñoon jëkkëram amul pour droit dóor ko léegi suñ ko tëjee moom kon on montre aux hommes taper les femmes def leen lu leen neex du mujj fenn on peut la corriger bu nekkee dafa tooñ jëkkëram mais nañu corriger jëkkëram parce que kenn du dóor jigéen kenn du dóor nit rawatina jigéen blessure yoo xam ne ku ko gis sa àdduna tukki boo ko gisee doo nelaw ba bët set <laughs> d'accord naa ñu dañoo sikk de ak ñoo mën a tooñ waaye nag du ñoom ñoo ñu war a yar jigéen da koy takkal or <laughs> da koy may oto da koy may kër mais nag suñu amee gouvernement boo xam ne état boo xam ne nawlawul jigéen faalewul jigéen nii rek la mën demee te nag dañ ñu koon ci dossier ndaw sii lañ ñu wane ne nawlawuñu jigéen ñaata de ñaata femme dans ce gouvernement là ñaata femme dans ce gouvernement là mais na ñun amuñu fu la parce que ñu wax ñun nañuy neex rek bëgguñu ñu dañuy toroxal ndax ki jàpp sa jëkkër tëj ko ki dàq sa jëkkër ci liggéeyam ki nangu sa liggéeyu jëkkër ki sa jëkkër doon nekk maçon di wàccee 3000 francs mënatu ko <laughs> bëggoo jigéen ndax boo bëggee jigéen da ngay jàppale jëkkëram boo bëggee jigéen doo toroxal jëkkëram te góor ñii ñuy toroxal nag ñii suñuy jëkkër lañ ñii suñuy papa lañ ñii suñuy nijaay lañ ñii suñuy jarbaat lañ ñii suñuy sët lañ mais nga tax arrêté tabax mais état bu dul sóoraale du calculer lan la ñuy doyee boobu état mais tu te dis bon ok j'arrête les chantiers parce que lii ak lii ak lii dëgg la état dafa war a liggéey mais bon chantier bu ma ko arrêté lan moo am ci ginnaaw je parle pas ki nga xam ne dafa dem lebi banque kooku ñëwaguma ci moom mais man je parle petit au petit maçon bu nga xam ne i vient pour 3000 francs par par jour wala 2000 francs wala je parle à la femme bi teg plaatam di jaay ceeb añ di jaay ndékki parce que sóoraale woon leneen amul woon beneen avenir lu dul loolu. di bokk ci ay nattam yaakaaroon ci loolu ana mu tey il y a beaucoup de gens qui sont en prison pour cela parce que dañoo leboon mënatuñoo fay ñi amatuñu fu ñu dëkk looloo indi bërki dem ñu ne cité be cité Marème Faye Sall ñëpp daw dem ubbi ji néegi parce que amatuñu fu ñu dem waa léegi ñu ne état boobu état la yow yaa ngi wax waxu euh, amendoy yaa ngi wax waxu nu mu tudd ci beneen bi li ñuy fay est-ce que ñoom ñi ngi koy fay est-ce que ñoom ñi ngi fay impôt dañ leen koy laaj